وبسهيل كلنا بلا سهيل للجميع أن صراط المستقيم وبسهيل كلنا بلا سهيل لك الكتاب يا قريب يا مجيب يا من به لا ثمني خير عجيب خلي وجه الذين ما كان له يا هدى من خير نحوه إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود والمهين دلتنا بك على يا ربنا يا رب وجب كعالم الكبار وجملة السحار أنت الباري قبل الآسرية تجيب أمام لا صالح يا حكيم قبل الآسرية تجيب أمام لا صالح يا حكيم حلو من كل كريم أكرم من أمره حلمه تكرمه أسمه كل كلام جمالي وأسمه حسابي رحماني خير بلا كفران تقى حسابهم عن كرامي وانيو بشكر بلا كفران تقى حسابهم عن نيراني اليمن واليسر وخير السدد بخير سير فتدار مدري أما كل سر زيد الأمدي أما لك المكرم المنتهدي فعلى سيد بالقرآن من تدي نجا بما يليم خير سدد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 jërëjëf jërëjëf jazakumullahu xayran demal na demal na bismillah waaw si wala nga sàmm doo jege tege na bismillah suñu mag yu baax yooyu nga xam doon ay tuutànk doon ay tuutànk xam ni jàng nañ ci taarix diggante bi nga xamante ni sekkoo ko doon mm-hmm. ba ci am ay xisa yu bari yu ñuy ba tax tey jii ñu topp tànk yooyu bay mën a jëmbal li nga xamante ni ñoom moom lañ ci wax suñu jël diyaane mm-hmm. duñu jàng nag te duñu gërëm ziyaar itam te itam di ko jox wàcc waaye mu wér imaam bi nga xamante ni moo di imaam walaate jàpp ni jumaa yi Seydi Hadji Malick yaa ngi naan sa bopp ndax kenn mosut a gis jumaa yoo xam ne dañu tudd ni jumaa yi Sëriñ Tuubaa ku dul taal bi Sëriñ Tuubaa dafa dundee kenn mosut a gis jumaa yoo xam ne naan jumaa yi euh, maam Baye Niass wala jumaa yi bu Kunta wala maam Limaa wala su baax baax yi kon jumaa yi dama jàpp ne alal la joo xamante ni yàlla suñu borom moo ko wàccal fii ci dëkk bi nga xam ne dañu war a woon suñu maam yi ngir ñun ñi nga xamante ni ñoo war a perpétuer richesse boobu ngir mën a jot ci loolu kon sëriñ bi ñu ngi lay siyaar di la jox wax ni loolu lay nag loolu xam ne ni sax addiyee moom daanaka rafetal suñu dong la waaye dañ ko jël rek ngir gën ko rafetal suñu cofeel ci yow rafetal ko suñu cofeel ci ki nga xamante ni moo fi teewal si arrangement yi ñaanal yàlla si mu taxaw si yàlla fi yàgg tamit képp ku sa xarit foofu maam yàlla fi yàgg tamit waaye tam di ñaanal daw seen tuba ak seen dinaar yi ànd bi yàlla rafet bu bëri asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf jërëjëf jërëjëf kàddu yu rafet na. salaamaaleykum mbokk taal. di baalu siyaar rek di ñaan maam sëñ mu taxa nga yàgg fi loolu ànd ak sa jëmfaal xalifa tijaan ñëpp rek yàgg fi loolu ànd ak di siyaar la kilifa jotaay bi tey mu di suñu sëriñ bi toog sëriñ Mouhamadou Mansour sëriñ Mouhamadou Mansour di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ànd ak di ko wax ni yaa di kilifa jotaay bi di siyaar tamit imaam nga xamante ni maam bu jub bi ñu conseillé si lu baax ak ak ñu ñaanal di ñaanal yàlla fi loolu ànd wér si yaay kii nekk sama wér mu di sëñ Daawar ndax di daan wax ni ñun ñi ñëpp xëy na ndaw lañu féete waaye ñu séq si dëkk bi loo xamante ni maanaam àdduna képp la ñu àndee ko mu rafet loolu ñuy gisante saa su nekk di di daje si yenn bërëb bi di ànd si xew-xewu àdduna lépp mm-hmm. kon bu ñu demee tey ba islaam taxaw yaakaar naa li war a mën a boole moo ëpp foofu loo xam ne war nañu mën a te bu ñu demee dina bëri euh, jumaay suñu. moom El Hadj Malick. moom El Hadj Malick daanaka ñoom dañoo baax waaye ñoom ñi wax dëgg fa yàlla ñuy rey mhm. waaw di rey si ñoom si lépp. di la wax di la maam seen liggéey tamit ñoom it bu ñu seedeel lu mel nii. amaana baax la waaye ñun ñu lay seedeel ni maanaam ni ñu taxawoo dëkk bi xam nañ leen si noppi xam nañ leen si yàlla xam nañ leen si pastif wax dëgg fa yàlla ay jàmbaar dëgg la am na ñoom ñun si àll bu rafet saa yu ñu xewlee tamit. daw yi Sëriñ Tuubaa yi ñëpp rek waa dëkk bi maanaam yaakaar naa sax gars yi wax nañ la problème yi nga am yëpp nga defal ñu si ay ñaan euh, bu wér wér wér kon xanaa dañuy yamale foofu kàddu yi nga ñaanal ñu soxna yeeg góor yàlla yeeg ñëpp rek waaw te ñu lay wax naan nag dalal jàmm waaw te jël ngeen jëf